yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu indil dini lislaam moo ñu indil itam weer yi muy weeru koor moo ñu xamal itam naka la ñuy ooree moo ñu xamal naka la doge moo ñu wax ne itam kañ lañu war a oor moo ñu wax itam kañ lañu war a dog moo wax ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaykum ci beneen riwaaya mu ne fa in gubiya alaykum faqduru la aw fa akmilu iddata salatin aw fa akmilu iddata chaabana yëpp ay riwaaya la jógee ci yonent bi mu ne suñuy or nañ or ngir gis nañ weer wi suñ ko gisee nañ or suñ ko gisee itam ca mujjanteli koor ga buy korité nañ dog julli korité su fekkee ne dañoo niisal jaww ji wala ñu nëbbuñu ko nañ compte ba mu mat fanweeri fan su fekkee ci Chaban la comme niñ def bi passé gisuñ ko woon ñu compte fanweeri fan ci Chaban daal di or koor gi nag teele ñaar fukki fan ak juróom-benn yaakaar naa ne samedi mooy nekk sent bu njëkk ci niñ gisee ñun su fekkee feeñ ci samedi ji dimaas lañuy ñuy julli su fekkee feeñu ci samedi dañuy def li nga xam ne loolu yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam lii nag lu leer la li ñu yonent bi wax lu leer la amul lenn loo xam ne nit mën na ko ci taawil wala dara ndax boo demee bëgg a àndan ànd ak koo xam ne itam seeni waxtu bokkul ak moom jiitu na la ñeenti waxtu wala juróomi waxtu nga bëgg a ànd ak ñoom ci koor wala ci dog su boobaa doo am ko tëral fu leer lii yonent bi wax nag lu leer naa ñu la loo xam ne nit mën na cee teg loxoom ñun foofu lañ taxaw samedi daal danañ séntu weer wi su fekkee ne feeñ na danañ julli dimanche incha allah waaye nag mënuñoo tëb tëb tëb tëb di tënk suñu bopp ne julli gi dimanche la ak lum ñu neex neex rek diine moom li ci ñëw yëpp ay ay tawqifiyaat la yonent bi ko tëral kenn mënta def nu mu ko neexee wala jëfandikoo xelam ba ne nangam la yonent bi tëral na comme leer na te mën na am nañ topp loolu